koñ bi def naa fi 12 ans ñun am nañ chance lotisel nañu mais cité Senghor toujours bu campagne vaccination amee man maay dugg ci ñoom ñu ñàkk ñoom ñëpp. vraiment ñoom ñëpp amuñu yoon nag comme lu ñuy wax nii amuñu benn robinet cité Senghor benn robine moo fa nekk benn robine bi jaam yàlla yëpp ca la ñuy rooti bu weesoo loolu ci teen bi la ñuy naanee. kon nag ñoom amuñu yoon boo xam ne fa la ñuy jaar yoon nañ waxante dëgg yoon amu fi bi ñu amee problème fii. préfet bi ñëw na ba fii taxaw ñu wax ko suñu métit wax ko lu ñu naqari yëpp ñu ne leen mbedd fii amul yoon ñu ne leen jasit bi ñëw na tiit nañ comme jasit bi ñëwoon na tiit nañ ñu ne dinañu jàppale kenn jàppale wuñu fi mu ne nit dee na xanaa fi mu ne dinañu jàppale parce que ba ñu bañoon bakkan amee bakkan dem na wallaahi war a suuri autoritaires yëpp nañu dégg te ñëw dimbale waa cité Senghor vraiment nañ leen dimbale te yàlla rek tax ndax ay jullit yàlla ñoo fi dëkk ay doomi aadama ñoo fi dëkk ay nit ñoo fi dëkk cité Senghor nit kese la teeni tamit nañ ci dimbale ndax ay a fi ne amul yoon yoon bi bu am bu ñu nawet jotee nit ñi dañuy bëtt di def kon nag comme yoon yi am na teen nañu jàppale préfet bi bi mu ñëwee nee nee nañu fii carrément nu fi jasit mën a dundee ñu xamal leen ne fii ñeenti teen mu ngi fi ñu ne leen bu soobee yàlla dinañ protéger fii léegi nag protéger wuñu ba nit ndee na ci nañ ñu jàppale te yàlla rek tax protéger nañ ñu protéger protéger waa cité Senghor te yàlla rek tax sonn nañ fi mu ne bakkan dem na bakkan dem na vraiment mënatuñu wax